Euh, salaamaaleykum maa ngi nuyu mboonu entier di nuyu Sénégal gépp mala la Mbacké benn Papito frère Papito Kara di bëggoon a wax si dossier Papito Kara nuñ ko jàppee jaaduwul te teguwul tegul si yoon déjà jàppil mi ñu ko jàppit du yoon parce que déjà convoqué wuñ ko dañ ko teg teg dil jo jox ko benn rendez-vous ay restaurant loolu lañ ko jàppee def ko arrestation ñu toog ba benn deux heures ñu wooñu ni ñu yaay rek frère Papito Kara ñu ñu waaw ñu Papito Kara du fanaan si tey te nit ki def rayul nit sàccul fenul deful lu garaaw je pense que boo koy jàpp quoi nga jox ko convocation ñu mu wuy ji quoi moo tane bu ñu ko jàppee lu ay euh, diffusion de fausses nouvelles ay détournant de de des unes ne dañu l'observateur la détourné alors que loolu du du si du si dara gis ko moom revue de commentaires la doon def revue de commentaire la doon def après si lañ ko jàppee ñu ciblé ko si jàpp ko si ba ba l'instant yi ni affaire mi ngi daw site bi mi ngi continuer di joxe ay nouvelle donc xam na war nañu xam ni kon du Papito Kara du si dara loolu lañ basé lool lañ ko jàppee dañoo yaakaar ni lii Papito Kara koy def alors que du moom dañu dañoo jàppoon ni Papito mooy def loolu te du moom revue de doon def du doon pour reetaan loolu nit ñi di commentaire sax la ko tuddee déjà revue de commentaire la ko tuddee di reetaan loolu nit ñi day dugal benn article gars yi di commentaire muy ciblé ay commentaire am di ko di ko wax. Papito Kara aussi du politicien gars yi ñoo jàpp ni politicien la mais du politicien du activiste liggéey la doon def di reetaan loo jaamu yàlla yi loolu la fi nekkee woon. Papito nit ku nit koo xam ne la aussi liggéeykat rek liggéey la xam jaamu yàlla liggéey jaamu yàlla la xam jàng alxuraan déjà am na ay groupe alxuraan yoo xam ne moom moom la créé propre moom la créé kon xam kooku nekku si ay caaxaan nekku si nii politique nii ay caaxaan ay kasaw kasaw. dañ ko jàppee si jaay doole lañ ko jàppee am na ñoo xam ne àtt nañ leen fii des récemment même pas un mois def nañ fi loo xam ne lu garaaw la ñu àtt leen ba libéré leen Papito Ka dañ ko war a libéré trois mois ñu dañ ko trois mois xam ne waruñ jugé wuñu defuñu ko dara ba ko feere mu tëdd loolu ban raison la nañ ko àtt nañ jël dossier am lijjanti àtte ko bu fekkee day tëdd tëdd bu fekkee dañ koy libéré mu libéré mais gëm naa ne bu ñu ko àttee dañ koy libéré parce que dossier le 14 la takk jabar le 28 si lañ ko jàppee le 28 si lañ ko arrêté ay une semaine la durée jabar ji tamit métti na quoi métti na. au début moom dañ ko expliqué woon affaire yi métti euh, terre à terre la quoi méttiwul après si la dem ba xam ne affaire yi nekk nekkatul ay nekkatul caaxaan daal mais métti na ko jabar ji instant yi ñëwoon na fi def na fi quelque gis na ko deux fois visité na ko mais métti na ko première fois mu gisee jooy na jooy yoo xam ne mooy loolu. jóge na fi instant bi delluwaat na Touba parce que toog na xaar-xaar gisul résultat après si lañ ñu ko nag delluwaat Touba toog ñu jéem a xool ñu jëlee situation bi. waaw mi ngi sëy wax dëgg fa yàlla te mi ngi góorgóorlu mi ngi muñ mi ngi gere famille bi aussi ñi ngi gérer ñu ngi muñ. état bi lu mu koy ñaan mooy na libéré Papito Ka na ko jugé deful lu mu koy duñ ko fay téye nañ ko jugé te yàlla tax defu fa dara si am na avocat. maître Khoureychi mi mi ngi si dossier bi mi mi ngi ciy gérer. ñu ngi si mi ngi siy wax lu mu mu ngi siy def lu mu si war a def daan ñu ngi déggante moom mi ngi siy def lu mu war a def. salaamaaleykum mbokk jëlee li maa ngi leen nuyu di leen siyaar man la Modou Gueye frère Papito Kara waaw tey nag dama ñëwoon di laase benn message pour sama rakk jee ñu téefee ci téegulul dara dama bëggoon lillaahi wa rasul ñu bàyyi ko te yàlla rek a tax sonn nan tàyyi nan billaahi wallaahi te gis naa fi ñu gën def ay jëye jàpp na leen fii lu yàggul ñu bàyyi leen àtt leen kee ñu tee ko trois mois ba léegi waxuñu ci moom leen puusuñu paasuñu surna kii am na avocat avocat bi def na lu ne su demee ñu naan dossier bi lii ak laa te Papito Kara nekkut euh, politicien Papito Kara jàppalewul benn politicien boo xam ne si mi ngi fi naan Papito Kara moo def lii moo def Papito Kara da doon reetaanloo jaami yàlla yi papitocra bari na ak ñoo xam si États-Unis ñi ngi fa fii ba pays bu ne da nga koy woon pour sopp ko ak reetaan yooyu ñu doon def yu am solo ñu doon def man li ma gën a neex ci moom dafa tijji woon groupe whatsapp boo xam si ay tuut tànk ñoom la doon tariloo alxuraan barki Serigne Touba sama kanam loo fekk na kii fekk na sama kanam mu leen di tariloo alxuraan yenn saa yi dana leen jox yoo xam ne si sax bu nekkoo kii sax day nëbbutu am na ñu bari ñoo xam ne si doon leen dimbale di leen jàppale ci suus kenn yëgul ma sàmb yëgul ma demb yëgul waaw lépp suture la ko doon def damay ñaan lillahi wa rasul sama kàddu gii ku ko dégg te yàlla rek tax nga di jullit te nga am baat réew mi lillahi wa rasul ñu libéré Papito Kara sonn nan sonn naa trop waxi noppi soxnaam tey la fi xëyee dem Touba toog na fi keroog dama mujj gis nga ban koy doog a jàpp saa su ne mu woo ma ne ma Baye Fall waa ana pap dana génn ma ne ko léegi rek fi ginnaaw suba dafa am lu ndaw luñ koy laaj rek moom it nag mu gën a firi daal di jàpp toog moo gën koo encouragé tout sûrement bu ñëw mu toog toog muñ muñ ba mu ñaag mu ñëw fii na day seeti Papito Kara lillaahi war sama kàddu ku ko dégg maa ngi lay ñaan lillaahi ci barke Serigne Touba ak kilifa diine gu ko dégg maa ngi lay tàllal samay loxo lillaahi war sol ñu libéré Papito Kara sonn nan tàyyi nan gisul ndey baayam tamit dafa nekk eh, kii moom it mag la mënatul puus fenn waaw ñun ñoo fi ndeyam ñoo fi baayam wasalaam salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu waaw ñu ngi leen nuyu di leen siyaare waaw Daouda Gueye la di mag Papito Kara ñu ngi leen di siyaare baax baax ñoo bokk ndey ak baay waaw comme ni ko suñ Modou waxee suñ mag yi rek waaw di leen wax ne Papito Kara benn ndongo daara la ku amub taalibe ko ku amu yar la te lépp lu mu daa def suñ kanam la ko daa defee waaw bañ na ko bu dee arresté lépp ci téléphone am la koy defee yorul machine yorul dara waaw bañ na ko keroog bi gars yi bi ñu ànd ñoom ba ñëwee ba ci néeg bi bi xoolee xool ñëwoon police yi ñëw nañ ba ci néeg bi xool néeg ba sonn yaakaar ne daa yor ay machine ak yooyu yëpp xool nañ gisuñu ci dara lépp mu wax ne ko ci téléphone la koy defee te suñu wet lay arrêté bu defee nag su noonu dañ naan ko dindil waaw te moom comme ni ñu ko waxee jëpp nekkul naan policier la nekkul dara waaw dadaa bégal doomu aadama yi rek di dimbali néew doole ji loolu la nekkoon ci internet bi képp ko am problème mu taxaw ci ba loola faju am na ñoo xam ne si ne seeni sëy tasoon na moo ko defaraat waaw am na néew doole yoo xam ne si ne ñàkkoon nan lu ne moo leen ubbil ko ko waaw waaw maanaam tabaski ñoo am bari na ñoo xam ne si ne imaam yoo xam ne si ne dañ koy jooytu tabaski moo leen lijjanti ban am xaru tabaski wax dëgg yàlla loolu la nekkoon ci net moom ak reetaan loo bëgg bëggal doomu aadama yi waaw ak classe yooyu mu daa def waaw lool daal la fi nekkoon loolu lañ ko xamee waaw sa cut naanut defut dara bañ na ko comme ni ma koy waxee rek saaga la gën a bañ ci àddinaam ñàkk teggin loolu la gën a bañ boo bëggee mu mer rek saagaal ci kanamam wala nga wax nu noona réewande la gën a bañ lépp ab yar la koy defee alxuraan karim bu lum guddi guddi alxuraan la koy lay tëjee moom lay fanaanoo ba ba set mu kon ne nekk ci kii bi waaw état bi kay moom dañ leen di ñaanal dañ leen di ñaan rek di leen tàllal loxo na leen kii deful dara liggéeykat la maanu na nekk nekk doomu aadama bi nekk donga daara nag kon ñu ngi leen di ñaan su barke borom Tuubaa ñu génnee ko ci jàmm waaw mu delluwaat ci liggéeyam wax dëgg yàlla ndax moo ñu jàppale fu ne ñun ñii moo ñu doon jàppale fu ne màggal gi loolu la fi daa def waaw te gis nga ko ren manqué nañu lool waaw ba fi mu toll nii soxnaam saa nga nee lu ne lu mu am lu ne lu mu kii ne ñun ñoo ñoo koy nag taxaw waaw nekk di ko lu lu mu soxla ñun la koy laaj ñuy dalal xelam naan ko pépito léemu génn léemu génn gis nga ko tey soo bu mu xëyee ñu ne ko leemu génn incha allah am nañ ci yaakaar baax a baax di dalal xelam kon nag ñu ngi leen di siyaaroon bu baax a baax jërë ngeen jëf